min sharri maa xalaq wa min sharri qaadiqin izaa waqab wa min sharri naffaasaati fil uqad wa min sharri haasidin izaa hasad bismillaahi rahmaani rahiim qul a'uuzu bi rabbil falaq min sharri maa xalaq wa min sharri qaadiqin izaa waqab wa min sharri naffaasaati fil uqad wa min sharri haasidin izaa hasad bismillaahi rahmaani rahiim qul a'uuzu bi rabbil falaq min sharri maa xalaq wa min sharri qaadiqin izaa waqab wa min sharri naffaasaati fil uqad wa min sharri haasidin izaa hasad bismillahi rahmaani rahiim qul a'uudu bi rabbi nnaas maliki nnaas ilaahi nnaas min sarri waswaasi xannaas alladi yuwaswisu fi suduuri nnaas min aljinnati wannaas bismillahi rahmaani rahiim qul a'uudu bi rabbi nnaas maliki nnaas ilaahi nnaas min sarri waswaasi xannaas alladi yuwaswisu fi suduuri nnaas min aljinnati wannaas bismillahi rahmaani rahiim qul a'uudu bi rabbi nnaas maliki nnaas ilaahi nnaas min sarri waswaasi xannaas alladi yuwaswisu fi suduuri nnaas min aljinnati wannaas allahumma innaa nasaluka min kulli hammin faraja wa min kulli diiqin maxraja wa min kulli usrin yusra wa min kulli faa'isatin sitra wa ala kulli xayrin sabila bi rahmatika ya arham rahim ya rabbal alamin bismillahi rahmani rahim sadaqa allahu sadaqa allahu alazim wa baraka rasulu nabi mustafa alkarim wa nahnu ala ma qala rabbuna mawlana min alshahidin allahuma arhamna bi qur'ani karim wanfa'na bil ayati wa zikri alhakim waj'alna hujjatan yawma din allahuma anfa'na bima sararta fihi min alayat wa zakkirna bima darata fihi min almusulat wa kafir bi tilawati anna sayiat innaka mujibu daawat allahuma taqbal minna xatma alquran wa tajawaz ana ma kana fi tilawati min sawi aw nisan aw taharifin aw taqdimin aw taqirin aw ziyadatin aw nuqsan aw taawilin ala gayri ma ansaltu aw taajilin inda tilawati aw kasilmin aw sayqi lisan aw sayqi lisan aw wuqufin bi gayri waqfin aw idgamin bi gayri mudgam aw izharin bi gayri bayan faktubhum minna ala tamam walkamal walmuhazab min kul alhan warsuqnaa fadlaman xarawma hadiyan xaqahu ma al aadaai wal qalbi wal lisaan wa hablanaa bihi al xayra wa saadata wal bisaarata wal amaan wala taqtim lana bi charri wa dalalati wa tuxyaan wa nabbihna xabla almanaaya anna min alxaflati wal kasalaan wa aminna min azaabi alxabri wa min suaali munkarin wa nakirin wa min akli jilaan wa bayid wujuhana yowma albaasi wa atiq riqaabana min anniiraan ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على صراط واشكنا وصل الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واكرمنا بلقائك يا ضيان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاها أغضاننا وذهاب همومنا وخائدنا وصائقنا إلى جنة النهيم اللهم اجعل أنيسنا في الوحدة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة وضليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة وعظمنا وعظم وعظمنا به من الشيخ والأهواء وكيد أعضاء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بسادة عاجلنا وحقق بزيادة أعمالنا وخرم بالعافية خدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مسيرنا معالنا واصب زيال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بسر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا وسقط بك زورنا واعتقادنا وعمن من الجوع وخوف بلادنا وصائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين اللهم بلغ صواب ما خرنا ونور ما ترنا لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله وعجوين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وطابع بيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين بركة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله بسم الله تجنان تلاوته ولا تجعلنا ممن يقع في الذل ويشقى اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة إبراهيم فرحمنا بها تغنينا بها رحمة من سواك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 inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin ñëpp di ñaan yàlla boole nu jéggal jéggalu ci ci ci ci jataay bi ak xat-xatu jamono waaye bàyyi yitte yëpp rek waaye sabab bi benn la rek mooy jéem a góorgóorlu ci liggéeyal yàlla yal nañu ko yàlla nangul yal nañu ci daje ngërëmam moo ngi jéggalu ñëpp euh, bis bi it euh, sabab bi wax nañ ko fi ay ati at ndax yàlla dogoon na ren ji mooy ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar alhamdulilah ñoo ngi ñaan ngeen ñaanal ñu yàlla gën koo yàggal li doonoon sabab bi it mooy euh, dawaamu sukkur sont yàlla borom bi subhaanahu wa taala jaarale ko ci suñu ki nga xamante ne jëmm ji nga xamante ne yàlla dogal na bi ñuy gimbi ci ci ci ci suñu bëgg ci sëriñ bi ci moom la jaarale mu Cheikh na Serigne Saliou euh, bi ñu ko ko waxee sàkku ci moom ñaan waaye mu dem ba jamonoy dox yàlla dogal dëkk bi ni nu dëkkee ni ko yàlla tënkee rafetaay gu mu nu mu mel ñu ne nañu wommat ndaw ñi jéem a ànd ak ñoom ci liggéey yàlla loolu nag mooy sabab euh, doxinu daayira bi doxe ni muy doxe bareen yàlla dogal bi commission commission bi nga xamante ne moo yor wàllu culture culturel ci daara ji ak commission scientifique ñi nga xamante ni nooy daja dajaloo di waxtaane xalaatu daara yi ñu dajaloo tànnal ñu ay mag ñoo xamante ni bii référence lañ ci dëkk bi seen ak dund macha allah yàlla barkeel na ko ñu ne nañ leen ci jël fàttaliku leen ci rendre leen ci hommage ci bis bi loolu mooy sabab bi tey. ñu ci tuddee ku mel ni sa waajur rek imaam Thierno Ibrahima Anne yaakaar naa ñëpp xam nañ li mu liggéey ci dëkk bi ci wàllu jàngale ci wàllu xam-xam ci wàllu yar ñun yàlla dogal ñuy ndaw. yaroo ci seen keppaar alhamdulilah sant yàlla bu baax waaye ku mel ni suñu baay imaam Ahmed saar waa këram ñëw nañu fii ci bëccëg ndeysaan ñoom tamit eh, xam naa ne mbir mi bett na leen lool mu Sarr rek nii toog alhamdulilah ñoom maa ngi koy wax ci suba nee naa ko yàlla dogaloon tey ñu ne dëkk bi kër goo xamante ne imaam Ahmed Sarr taxaw na fa jàng fa alxuraan nañ ko taal kon yaakaar naa ne dëkk bi kër du fi des noonu la mel it imaam Ibrahima Sy mag ñooñu nag bu ñu leen tànnee taxawaay boo xamante ne am nañ ko ci dëkk bi la ci li nu gis te yaakaar naa bu ñu ko waxee liñ ci xam imaam yi ñi toog li ngeen ci xamu ko ëpp ku mel ni ma Baye Ahmed euh, Tidiane Sarr gis nañ taxawaayam ci dëkk bi rawatina ci jumaa yi ci lu nu fekkee loolu nag ci lu nu xam yàlla ci lañ liggéey ba tax mu indi lii ku mel ni Baye mbay Niang macha allah moom noonu ñooñu lañ xam tànn leen. ak mag ñi nga xamante ne yàgg nañoo ànd ak ñoom ci liggéeyab sëriñ bi ci yoon wi ku mel ni Baye Sëriñ Kan ku mel ni Papa Jëmbu Guèye eh, ñooñu it ràññee lañ ak Baye Bada caw ay mag ñu ñu yàgg gunge lañ ci liggéey bi nga xamante ne ànd nañ ci muy liggéeyal sëriñ bi. loolu nag buñ ko indee boole kook ñenn ñoo xamante ne ay membre lañ yu jigéen yoo xamante ne ci daara ji lañ bokk yàlla dogal ci néew ñu wàcc ci liggéey ñu tànnee ku mel ni suñu yaay ajaratu Ndey Njaay cubbu Euh, baarakallaa liggéey boo xamante ne def na ko ci daara ji ñëpp xam nañu kon nag yow ak yaa Maba Diallo ak maire Maguette Dieng mag ñooñu tànn leen indi leen nag imaam li ñu ci bëgg a jàngalee ci ndaw ñi ñi ñu maasee jamono ñi nga xamante ne xaj na mag nañ leen ñu jàngale lan mooy jom lan mooy ak bëgg ak naka la ñu war a góorgóorlu ci jaamu yàlla ndax lii jeexital la ci boo xamante ne wane na ci loo xamante ne bii war naa tax nu góorgóorlu ci liggéeyal yàlla borom bi subhanahu wa taala suñu kemtalaay kàttan kon nag alhamdulilah wax ji du mën a bari ñu ngi leen di sant di ñaan ngeen ñaanal a bi xam naa léegi ci ndigalu imam rek Moussa imam Abou sëriñ Mara bi mënatul eggale wax ci waaye déjà lii rek wan na ne lu mu junj yëpp ci koñ bi ak ci mbaax ak fàttaliku suñu suñu góor paay baax yi nga xam ni jaaroon nañ fi la ma liñ ci xam ne ñun xam nañu ne nekkoon nañu seen keppaar tuuti mooy ñaar fukki at ak juróom-ñaar ci ren kaamil bii maa njëkk lal basan bi kër ndaw ca étage ca étage ba man maa ko njëkk lal wooy imaam Ibrahima Ibrahima aan comme nu mu ko waxee woo imam Ahmed si euh, kii si ah, Ibrahima si wooy Amat Sarr parce que boobu jamono yooyu maa doon ndaw maa yoon ndaw ñu lal ko ci sa kaw kër ca étage ba buñ ko lalee sëriñ Daawdu Puy mi moo ci joxe woon ndigal moo ko tëj waaye bu ñu mosaan egsi tamit moom ak sëriñ Abdou Karim Mbacké jël lépp ci loxo Amat Sarr Amath Sarr def xadmu bi Mara bi bii nañu ba ngeen paree xam nu bi bu leen fi jóge mukk ci xéewlu wu leen kon nag yàlla dogal na ñu jëkku ko lal ma fekkee ko wa ma shahidnaa illaa bimaa allimnaa kon ni nga ko wax nii la demee ñu tënku ko rek ci nom ko imaam santaane kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant leen ñaan lii mooy diine. diine lii mooy diine te bi ngeen di xoolee na ngeen ko na ngeen ko rabbe ak mag yi ngeen tudd yëpp ngeen xam ni yéen a bokk koñ bi. yéen a seqante woon di jëflante di amlante ngeen nekk tout tànk jaar leen topp leen topp leen ba tey jeexit yaa ngi nii imam an macha allah lu mu taxe woon njabootam ko taxawee nii ci ginnaaw Amath Sarr tudd nga ko doomam a ngi nii ci ginnaaw jàpp ci kaamil bi kon loolu rek jeexit yaa ngi nii sant yàlla naan suñu borom subhanahu wa taala yàlla na gën a yokk dara yi yàlla na léegi lépp li ngeen ci ñaan yàlla na ko suñu borom sa mbëttal mu ma tamit mu egg ci ci seen i biir yi ñaan yi yàlla na ko suñu borom yëpp nangu bi jaay suñu wajoot mu ne wuñu sax wax ndax mbir mi dafa dafa rëy dafa tiis ci nun rëy ci trop ndax day mag yi nga xam ne ba nga leen tuddee fekk man mi ma jaxasoo woon ak ñoom lool suñu rakk yi soogay ñëw man la may yëg ñoom duñ ko yëg ndax j'ai soixante-douze ans dama yaakaar ni bu ma defee quarante ans ak ñooñum ñuy wax ah ak ñeneen ñi nga xam ne ñi sax xëy na ñu ma xaw a féete tuuti kii defe man la may yëg ñoom duñ ko yëg war na jërëjëf yal na leen lañ ci mën a tënk daal mooy effectivement ñooñu ñoo lal jotaay bii te fekkee naa ko maa lal basang bi maa leen woy ñaar fukki at ak juróom ñaar nag ci ren lu dégg kooku moom kenn mënu ci wax leneen ëpp lii ma la ci wax keneen ku ci mënoon naa ci wax nag lu bari waaye jamono bi moo xat la xoj nu lu dégg kon na mara jëf jërëjëf mënut a passé jërëjëf macha allah yow diine bi yëpp nga liggéeyal ñëpp ñëpp ñëpp jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall man moom damay yalwaan di ko màjjaal fiñ ko jare màjjaale ak ñi ko jara màjjaal ngeen ñaanal suñ jëwriñ ji mu yàgg fi te wér ndax Mara ku am xel la ku ñàkk ki ñaan la te ku mën a boole lu jafe si jamono ji ñu nekk nii ñon rëccuwuñu li ñuy sëriñ Tuubaa boole ak moom ndax tey jii dina xalaat loo xamante ni bii sax yow sa xel musu ko njort sax nga xalaat ko kooku ku yàlla baaxal rek moo man loolu te moom mii yàlla da koo baaxal ni leen di ñaan nag te xam naa ni mi ngi si yéen te yaakaar nañ ko si yéen it ngeen ñaanal nañu ko mu yàgg fi lool te ànd ba seytaane bañ am suñu diggante ñun ak ak moom ba léeneem si naan gi nga xamante ni moom la Serigne Touba dimbalee ñu bañ war fay yor suñu suñu matt si wi ñu bay ko si anam bi nga xamante ni moom la ko Serigne bi bëggee ndax kan mission moom la sëñ Mountakha wax rek fa la nekk moom te moom la yéene waa daayira nekk ak njaboot gi ñëpp képp koo xamante ne wàqinaan ne fi mi ngi fi ñun nag moom. dañuy sant rek ndax ku ne mën naa woote waane li jafe nga woote ñu wuy si la te Miftaahou Saada fu mu wootee képp koo xamante ni bii nekk si gox bi ak xat jamono ji ni mu mel tàmbalee ko ba si imaam kenn ku ne xam ne ne imaam ak jot amu ko mais fu mu Miftaahou Saada woote keneen ku woote da ngay ñàkk ndax loolu ak bëgg rek moo ko mën ak yéene dong moo ko mën kon nag ñu ngi leen di ñaanal bu baax di leen sant. di leen sant di leen gërëm bu baax a baax di ñaan tamit suñu baay bii nga xam mooy ndongo ndaw moom mi nga xamante ni bii moom liñ naan feccum niir bu neexee ndey jaa jàpp sa wagg ya moom mi bu ñu amee fit moo ñu ko yokk ndax kat bañ demee toll si wàllu jataay fu nga xamante dañ faa war a mën a toog di waxtaanee mbin yenn si mbindum sëriñ bi moom mi da ne kat sama kër du fi nekk ngeen di jéggaane fenn te booba jamono ñooyu dañ doon wax ne dañuy luwee ji mën a rus naa ngeen di nekk fii sama kër ne fi ngeen di luwee ji mu ne kon jël leen ngeen tabax sa kaw ngeen def ko daara kon kooko moom it sant moom mënuñu ko mën a ñàkk sant kon li ngeen di wax rek mooy ñi ngi sant ñëpp sant goo xam ne am na tàmbali wante amul fu mu yem mbarke Sëriñ Tuubaa Mbàkke li nga xamante ni bii nag li dàq si àdduna si am murit ngay jëf mooy ndigal te li ñuy def ne dañ ci am ndigal Sëriñ Saaliw Sëriñ Saaliw moo ne sant leen sama loxo mi ngi si biir ku war a yëg yëgal ndax ku xool ni bis bi demee at mu jot nga xam ne loxo sëriñ baa ngi si loxo sëriñ boobee nag ak barke je na dal si ñun ñii ñëpp ci barke sëriñ Tuubaa Seera Faal ñoo ngi jégalu wasalaam. imaam maa ngi jégalu maa ngi jégalu bu baax xam naa li mu ciy dolli rek ñu ñaanal tamit sant fami sëriñ Babacar euh, sëriñ Ibrahima Pouy yëpp tàmbalee ko ci sëriñ Daouda Pouy ak sëriñ Jili njaboot gi yëpp ñu ngi teew sëñ Babacar ngi nii ak sëriñ Mourtala sëriñ Daouda ñëw na waaye ci kanam incha allah dina ñëw bu ko defee comme jotaay bi dafa xat bu sëñ Babacar joxe jooyalee ay kàddu ñu jox imaam mu dolli ñu te jataay bi imaam ñu ngi lay ziar di sa gan gu mag gi nga àndal tamit ko defee jataay bi bu ci guddee dañ ko gën a yaatal incha allah ci ci ci cérémonie officielle bi incha allah. Ah, bismillahi rahmaani rahim. allahuma salli ala sayidina muhammadin asaabiqi lil xalqi nuuruhu wa lil aalamina zuhuruhu. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu. di jiital ci nuyoo bi. saxibul fadila al imam ñu ngi koy nuyu baax di ko zaara euh, sunu waajur wi di imam Dukur Njuuk ñu ngi koy nuyu baax euh, ak ustaas ak borom xam-xam yi fi teew yëpp sëñ Mara yow it ñu ngi lay nuyu ak mboolem jëwriñ ñi nga xam ne yeeg ñoom yéen a nga ànd liggéey bi euh, sunu mbokk mi nga xam ne ñoo bokk bawal moom itam ñu ngi koy nuyu ak sëñ Ndaw liggéey bi day wax dëgg yàlla xel dal na ci. ndax ña ko sosoon eh, ci ay mag ak i kilifa am na ci ñoo xam ne bu yàlla dogalee ñu dem ngeen delloo siwaat aadu boobu newoon seen diggante kóllëre bi loolu dafa am lu muy jàngal loolu la borom téere boo wax ne wasim buruqal maali bi maqailiha bi nazire xalbin tuk fa mu natal amali ña sosoon lii tey ñooña ak mag ñen àndaloon imaam wax ko léegi ñooña mënatu noo xam seeni jëm xaqiqatan waaye bu buñ xoolee ci seeni i seeni jeexintal danañ xam ne ñoom kat seen liggéey barke na seen yéene barke na ñu tàmbalee ko ci nag ci ki nga xam ne moom lañ mujj a gis ci leeri ku tedd ki muy Serigne Saliou radiyallahu taala anhu loolu nag dal na xel ndax lii liggéeyam Serigne Touba te Serigne bi ab liggéeyam moom moo ko garantel boppam ndax dafa wax ne. mboolem li baax lépp suñ boroom jox na ma ko ah atayta nii jamia doona salabi waaye wali taqudu su la waxta talabi euh, comme nag moom loolu moo ko waxal boppam ba pare mu wax ne texe de ñeel na murit bi dëggu nangoo joxe addi ak liggéeyal ma mu wax ko ci xol bu kaaw ala tuuba li abdil muridin saadiqin luhumu bi xidmatin aw bi hubin aw hadiyaati gannaaw loolu lépp boo amee sëriñ bi mënu wax buñ koy liggéey nag ana nañ ci mën a amee muy fa kullu man xadama nii aw saara fa najjihu wax fi aw saara sëñ Tuubaa ne ku ma liggéeyal wala nga siyaaral ma suñ borom yow na nga ko jéggal te na ko muccal léegi julit bi wala murit bi soo amee ak njëggal am ak mucc àdduna ak àllaaxira kooku daanaka texe na kon wax dëgg yàlla lii liggéey bi ku mu ci mën di doon ñi jàng alxuraan yeeg ñi indi sees yeeg animateur yeeg jàngkat yeeg waxtaankat yeeg ñi teew ñi ne ca waañu ak ñëpp seen yéene ak seen pas-pas moo ñu liggéeyal Sëriñ Tuubaa waaye liggéey googu ñu koy liggéeyal nag ñoom lu ñu ci mën a amee muy ak njëgal ak mucc àdduna ak àllaaxira loolu nag bu ko jul bàmmee daanaka dara kawewu ko ndax ñun ñëpp loolu lañ bëgg ndax adduna loo mën a jaamu yàlla mën a jaamu yàlla te amoog njëgal amoog mucc boo faatoo suñu borom tabala sa boo xëyoon liggéeyal bis benn nit yàlla bu yàlla gërëm benn bés mën nga caa ak njëgal ak mucc boo faatoo suñu borom tabala àjjana kon nag lii mën na ne liggéey la boo xam ne fu muy jëmee muy àjjana la ko jiitu nag muy ak bëgg kon nag yàlla nañu yàlla boole dimbali te nangu ñu liggéey bi yàlla buñ ci gis suñu bopp yàlla bu ci seytaane am wàll sëñ Mara yàlla na yàlla kattanal la yàlla na yàlla dëgëral la yàlla na yàlla sàmm la buñ ko waxee wax nañ mboolem ñu ne ci oto bi ndax tey mën na ne yow yaay xaayit bi yow yaay capitaine bi yow yaay chauffeur bi yaay dawal soo muccee rek fa tabaarakallaahu ñëpp mucc te ku fi daan ñëw démb ba ca jamonoy Fallou yaay ba Xaadim Gueye ba jànkati fi jaar ba baren ji daa fa tabaarakallaahu dina xam ne ak yokkute am na at ma ko alaaji Seex Jom Mbaay jëkkee jàng ba nga ma woowee wax ma ko ko ne ah, am ngeen ab jànkat waaye ak gëm naa ne dootu leen gaaw a bàyyi ndax fi ku ne jaar na fi kon nag yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme guddi na te waxtu waa a jot ñu waajal waxtu ba ba guddi ñu dellu siwaat sëriñ bi yàlla daa dogal bi mu ñëwee am ay yite yu ko dabaat mu euh, continuer biir Ndakaaru waaye mu ngi ñëwaat léegi ndax bés bi ñor na ko ñor goo xam ne sànq bi ñëwee dana ma 2018 laa ci géej amul benn bés boo xam ne mën naa tax mu jóg ñëw ci Ndakaaru gi bu dul bel bés mel nii lu ci ëpp day yebal day yeble bi mu ñëwee Sall ma ko ne ñëw gi baax na ndax ku ku ñu gis dal ne ana góor gi mbaa feex na mbaa wér na te góor gi dara dal <laughs> dara dalu ko jàmm rek ko dal waaw fa tabaarakallaahu kon nag alhamdulilahi rabil alamin yal na yàlla nangu ñaan yëpp ci barke Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam imaam ah kon nga def ñaan rek incha allah maa jël waxtu bi bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu nuyu mboolem ñi fi teew di leen wàcce seen wàccuwaay di leen jéggalu di ñaan jéggal borom yi boo leen jéggal bi jaay sayyidil wujuudi wal mashuud sallallaahu alayhi wa sallam daanaka wax ji fereku layu na bi Baye Ibrahima waxee ba daane rek mënoon doylu ci ay kàddoom rek mu yóbbaale ñun ñëpp waaye comme sant la sant du doy dolli santaat rek bu baax a baax su ma amoon lenn lu ma ciy dolli mooy fii buuba daanelee rek wax ci Mara tuuti ah, taxawaay bi rafet na lool ndax ku xam Mara xam dëkk bi. gis ko ni muy doxee war nga koo santal yàlla xam ni mi ngi mi ngi béy ci ngi béy waaram di def kem kàttanam ci rafetal te loolu la sant jullit wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin loolu yàlla santaane ko xam maaraan min ko ci dëkk bi gis ko ni muy rabbee diggante murit yeeg tijaan yeeg laayeen yeeg ñëpp te loolu nag moo taxoon ñu naan jullit jullit dëgg waroo ràññee kenn boo gisee yàlla ne maakaani ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kaana xanifan musliman dafa am lu mu doon junj te yooyu nag yaa ngi ci ay tànkam di la ñaanal yàlla yàlla gën guddal sa fan ni ko Bouba saako may la wér ak dëgër yàggale si kanamu njaboot gi si kanamu daayira bi nga yàggalee ne tete cant ki tamit yàlla nangul ñu ko ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax euh, di wax ak li Baye Ibrahima wax ñëpp ak lay sant di la gërëm di la ñaanal kon comme waxtu wi tënk nañu ñu bañ a guddal ñu joxe ñaan rek su ko defee ñu yeewee ko ba ñu dajewaat fi guddi allah. lañ ci mën ci ay kàddu ñu sànni ko ci bu neexee yàlla incha allah ñu bokk muslu ci seytaane jàngi fatiha salaatul fatiha yàlla ñu yàlla boole nangul astaghfirullah a'uudu billahi mina shaytaani rajiim arrahmaani rahiim allahumma salli ala sayyidina xaatimi allahumma ahsin aqibatna fi l-umuuri kullihaa wa ajirna min xizyi d-dunyaa wa azaabil aaxirati bi hurmatil qur'aan